waaw tey nekkoo écurie Fass. Hmm. mais mënuñoo wax Zalo do waxuñu écurie Fass. non non loolu mënul nekk écurie Fass jamono jii nii ay problème bëri na fa parce que mbëri fa nekk yëpp ñu leen di wooyee euh, comme par exemple Gris Bordeaux ak ñooñu ñu ngi tegle ay défaite. Hmm. tay boy jang écurie Fass pour yow lan mooy problème bi ci côté làmb ji wax ma loolu mais pour yow lu waral défaite yi pour yow. waaye yaakaar na seen problème ñëpp a ko déggandoo dégg nañu fi problème mu Papa Sow Gris Bordeaux dégg nañu fi yeneen problème alors man dama mës di wax ne. écrit la boo xam ne te lu may wax dama ko gëm suñu mànkooyee ànd ñoom ñëpp am benn combat am ay combat sax laaw bëgg ko ñoom ñëpp ñu jàpp ne combat yi waruñu ko ñàkk man de li ma fa nekk ba jóge fa à chaque fois bu ñu amee combat bëggee ko noonu dama gis ne dañ koy gagné quoi mais saay bu bu ñu amee ay coow ay kii rek écrit bi noonu lay demee quoi nekkoon naa fa mais ba ma fay nekk man ak Tafa sël ñoo fa nekkoon ñaar ñoo xamante ne ak nañ ci kaw di bëre Tafa Gueye woon man ma topp mais yaakaar naa problème yooyu daawuñu ko foon dégg peut-être daan na am sax mais daawul jëm kaw mais état bii nag xam nga mbër yi nag dañu fa bari car macha allah champion ya bari fa te nee ñu ñaari yëg mënuñu bokk mbalka des fois erreur yi day am ñii gisee na la ñii gisee na xëy na problème yi loolu la rek mais en cas li mu mën a xam mooy mbër yi ak encadrement bi suñu jubóowee nekk benn écrit boo xam ne neexuñu gagné quoi. Hmm. kon bu ñu déggee wax ji mooy que ne euh, écrit face instant nii problème organisation moo waaw moo fa am mais nag organisé woon nañu temps yi nii nañu xool ba xam seen combat yi ñuy jëm ni naka lañ ciy génne parce que dégg naa woote nañu benn réunion ba waxtaan nañu ba tuute ok fi mu nekk nii ma leen di ñaanal rek seen combat yi di ñëw nii liñ ci bëgg yàlla leen ko yàlla côté boobu Zallo nekk écurie Fass ba génn fa am fa defet hmm. Tapha Gueye nekk fa nekkoon Tigre de Fass hmm. Gris Bordeaux ñëw ñu ne mooy Tigre de teg ay defet hmm. est que pour yow Tigre de Fass bi xam nga tey jotul ñu changé ko wala boog lan appréciation ngay am ci Gris Bordeaux bi ñu mooy Tigre Fass te pourtant ba tey Fass demul kaw. waaw comme moom mooy Tigre Fass instant bi nii te moom moo fa nekk moo nekk leader bi xam nga ay défaite mënul tax nag tamit ñu ne dañ la fiy teggi teg fi keneen dañoo war a xool ñoom lan moo koy yàqal ñu defar loolu jéem ko organiser ba nga xam ne bu taxawee li ñu bëgg ci moom dina ko am mais bu fekkente ne tamit te maa ngi ci benn jour te Gris Bordeaux bi ñu koy solal affaire bi nee na bëgguma ngeen solal ma ko ba pare. tigër ba pare seetaan boo leen ma ko solalee ba pare jàppale ma li ngeen bëgg naa ko def léegi nag loolu aska am na aska amul bon mu ngi noonu quoi. mais est-ce que tamit am na xam-xamu nekk Tigre de Fass. waaw xam nga Gris Gris tamit am na manin bu mu mënee ba nekk ba ci kaw stade bi nii ba daan fi ñu bare ah li tax loolu noonu manin boobu mu rëcc ko parce que man eh, am na lu ma ko xamee leen gisatuma ko Gris da daan dóor rek songu mais léegi day taxaw di xeex jëlal combat yi temps te daawul bëree noonu xëy na tamit loolu moo indi ay defatam nii parce que Gris da daan léewaantoog yow dóor la nga dóor mu jël la mais song moomu léegi gis naa ne perte na ko parce que saa bu départ di song gars yi dañu koy gis téye ko mais na travail ci loolu xëy na loolu moo tax victoire yi gaawatul. bu ñu xoolee Papa Sow aussi Papa Sow dañuy fàttali Zallo ci seen situation muy lan Papa Sow mi ngi soog a defee di léegi la la soog a am muy Lac de Guiers mm. mais xam ne Gris Bordeaux doon tegle defet yi moom muy am victoire. waaw ñu jéeg

te gëm na li muy def te yaakaar naa forme yi ma ko daan giseel maa ngi koy gisee moom ba léegi xaw ma nag lan moo indi problème yi ba tax muy demee noonu bon comme nekkuma fa mënuma ci sori ko mais daal en tout cas dama li ma leen di ñaanal mooy daal samay gaañal lañu samay waay lañu surtout Papa Sow ak Oussa Sow ñooñu samay waay lañu sama ay booy lañu yoo xam ne du may nekk écrit face li ma lay wax ni lu dëggu la dañ nañ toog di waxtaan lu lu xóot ma ak ñoom barke Seydina Mohamed li ma koy ñaanal mooy Papa Sow yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla may ay ndam ci li mu judd. mais Papa Sow kon tamit wax dëgg saal jot est-ce que jotul aussi face comme que Gris mi ngi teg lay defet jotul aussi ñu jox Papa Sow bi si euh, Tigre de Fass bi xam nga tamit loolu ñoom ñooy xool rek. non mais ñoom ñooy xool mais yow tey xam nga xam nga làmb saal. Mm. bu xam nga làmb. Mm. tey est-ce que tamit jotul comme que Gris mi ngi ñëw mi ngi teg la ay défaite défaite yoo xam ne ñu ngi naan Gris tegul combat am ci yoon respecté wu ko mm-hmm. Papa Sow mi ngi entraîné mi ngi ak formam tamit aussi ah, waaw xam nga ñoom ñoo toogoon ba xool ne Gris Bordeaux la ñu jox ko ko xëy na bu ñu toogee ba xëy na ñu gis ne du moom xëy na dinañ ko bu ñu gisee ne moom la tamit ñu continuer ak tamit boy bu ñëwoon Papa Papa Sow nekk na Tigre de Fass du parce que papa tamit aussi boo xoolee a chaque fois mi ngi examen pour jàll

booy la boo xam ne raar na ci pois lourd bu toll noonu moom muy manipuler yaramam au lieu yaramam di ko manipuler moom mooy manipuler yaramam am Manga 2 laa gis Manga amoon na poids mais da moom moom moomoon yaramam lu ko neex la daan def te booy boobu gis naa ci moom mën na bëre mën na xeex ba pare moom moom yaramam buñ ko jàppalee war na mun a nekk euh, champion bu